bàyyi xel euh, Baol TV euh, euh, officiel ñu ngi fii ci Magalu Daaru Salaam édition 2022 ñu nekk fii ci nga xamante ni toog ak Serigne Modou Boussa ibnu ñu koy dundal fii ci kër Serigne Axma ànd kook muy magam ànd kook waaw muy mag ki Serigne Axma ñu ànd kook mboolem njaboot gi macha allah ñu koy dundal dund dund gu rafet macha allah tarkalla euh, ñu fas yéene euh, dékk micro sëñ Modou Bousso rek euh, mu wax ñu ci màggal gi nuñ koy dundale fii ak li waral màggal gi ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatoo mbokki jullit yi mbokki taalibe ñoo ngi nuyu yéen ñëpp. ñu ngi ci turam ak ci santam ginnaaw bu ñu sante yàlla. di julli ci yonanteem bi alayhi salatu wassalam di santa bu baax suñu yaakaar tay ak Serigne Touba khadim Rasulu di jaajeewal sunu buntu ci mom tammi mam si xanta Mbàkke borom gawan ak daru salam ah, di sant mboolem njabootu borom gawan gep di leen nuyu yeen wa site internet bi di bawal TV ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci taxawaay bi nga xam am ngeen ko ci magal gi muy bisu bo xam moy bis bi Serigne Touba ñibbisee ci tukki bi. Mam ko maam Cheikh Anta Mbacké borom gaawaan ganalee fii ci Daaru Salaam gii joxoñ ko si ndigal ni ko at mu jot dee ko woote muy bis boo xam ne moo njëkk ci yoonu murit ndax mooy ñibbisu Serigne Touba Mbacké ci géej gi bi ngi fi nganalee ba noppi ah, Serigne bi daa waxan maam Cheikh ni ko at mi delsee dee ko màggal xam ne bi toogaat ab diir doo ko woote màggal kon bis bi mooy bis bi nga xam ne mooy bis bi njëkk ci yoonu murit ah, bisub màggal Daaru Salaam ak bis bisub màggal Touba mooy ñaari bis yi nga xam ne sëriñ bi fekk na ko fi màggal ko joxe ci ndigal bis boo fi gisaat bu dul boobu rek jàpp ne ginnaaw sëriñ Touba la kon bis bi bisub ñaan la bisub fàttiku la bisub sant la ah, di sant mboole mbokki taalibe yi nga xam ne bàyyi ko nan fu ne ci biir réew mi ak ci bitim réew daal di ñëw teewee ci bis bii ñu ngi leen sant bu baax baax baax di leen gërëm ndax taxaway bi amé ju ñu màggal gi rafet na lol njàngam alcorane mi eh, depuis ñen fan ci ginaaw la ko commencé won ba légui ni tay la ko wara a ak njàngam xasid mi ak salatu ala nabi bu ko defee ni yeewi mbooloo bi ñëpp eh, delluwaat fa nga bàyyi ko maam da ñi ni santu bax ba di leen gëreum ci taxaway bi xamé amé nañ ko ci bis bi maam Cheikh Anta nak eh, bo gisé mu am bis bi manam dafa am ci Serigne Touba lo xamné ne kenn amu ko waral loolu daa man ci Serigne Touba la kenn mënul xam ci Serigne Touba la kenn xamul defal Serigne Touba loo xam ne kenn defal ko Serigne Touba ndax maanaam mooy ki nga xam ne moo njëkk jëblu ci Serigne Touba moom la Serigne Touba njëkk a seexal jox ko dëkk muy Daru Salaam gii nii bi mu am fukki at ak juróom-ñett ci la ko Serigne Touba Mbacke di seexal jox dëkk bi taftal ko mbooloo doo ko dem sañc Touba kon tamit dëkk bi ma histoire la. boo seet maanaam moo mag Touba ndax Serigne Touba fii la sanc pare jóge fi jox dëkk bi maam Cheikh doo ko dem sanc Touba kon maanaam dëkk bi kon dëkk boo xam ne histoire la euh, maam Cheikh nag euh, boo gisee ñu koy wooyee borom dërëm ak borom ngërëm li ko waral maanaam dafa jëfal Serigne tuubaa loo xam ne maanaam euh, Serigne Touba xolam da ser doon ndax Serigne bii dafa am bis ay ay gan bett ko bi bi maam Cheikh Anta Mbacke yëgee loolu rek. daa dem euh, jaayi benn arme boo xam ne daa wurus la a xaalis dam jën ci u yëkk daa daa koy rey berale ko berale ko gane Serigne Touba yooyu ba Serigne Touba ban yëgee ba Serigne Touba yëgee ni maam Cheikh Anta jënd na wu yëkk euh, berale ko ganam yi daa wootee ni indilee ma deru nag bi nu indil ko deru nag bi boo mu ne woo leenu maam Cheikh Anta nu wol ko maam Cheikh Anta mu ko taxawal ci kaw der bi mu taxaw ci kaw der bi mu ne ko ñi ngi tiimee der bi noo ngay tiimee ñëpp nii der bi bëree karaw noonu ngay bëree ay dërëm ak i ngërëm loolu moo tax ñu koy wooyee maam Cheikh Anta Mbacke borom dërëm ak ngërëm moom moom li li li daje ci moom bari na lool. Ah, moo njëkk seex ah, njëkk jëbul ci sëriñ bi bi sëriñ Touba ñibbisee moom la njëkk jox loxo ah, moo njëkk jox sëriñ Touba mbindum xasida waan moo njëkk jox sëriñ Touba addiya moo njëkk ab woote ab bis mooy bis bii nii. Ah, bi Serigne Touba ah, bi mu ajalee Serigne Touba ci mag ah, eh, mbalaat ma nga xam ne moo muur moo timan pab yow a timan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da koo jënd ci yi ak mbalaan ma wëran kaa a indaale ko borom Touba maanaam daal lu ne am na ko ci Serigne Touba wante lu ne defal na ko ci Serigne Touba moo tax it Serigne Touba faye ko bis bi moo tax it bi ko Serigne Touba faye bis bi tamit mbooloo wi xam ne tamit moo ayisu moom bari na bari goo xam ne wante tamit dañ koo gëm di ko liggéeyal ndax képp koo xam ne liggéeyal nga Serigne Touba Xaadim Rasuul rek nit ñi dana liggéeyal te duñ ko sañ bañ boo gisee dëkk bi ni mu feeseeg mbooloo li waral loolu maanaam Serigne bi maam Cheikh Anta dafa toppoon Serigne Touba yëmale ko kenn defuñ ko dooy defuñ ko mosu koo def doomi baay ab Serigne la ko defoon moo tax it euh, Serigne bi defal ko loo xam ne defalu ko kenn kon daal bis bi loolu mooy sawu bis bi moo tax euh, mooy li waral màggal gi tamit bisub cant la waaye bisub ñaan la euh, te tamit bisub fàttaliku la ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal bi fu leen bëgg àgg rek ngi àgg fa ndax taxawaay bi nga xam ne amee nga ci bis bi saa su ne ñi ngi koy gis fu leen bëgg àgg yàlla ngeen fa àgg fi barke borom bis bi sant na leen baax gërëm nañ leen ah jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf loolu lañ fi jële woon kon wéy leen di ñu topp lépp loo xamante ni tukkee na ci màggal gi leen ko dégtal ci Baol TV jërë ngeen jëf la première télévision d'Ibawal.